tey bu ñu waxee ne moom ministre de la femme euh, de la famille du genre et de la protection des enfants tey ñëw fii teew fii ñu am ci kontante bu baax ndaxte tey bu ñuy def bu ñu doon def projet bi Euh, gisuñu koo xamante ne tey jàppale nañu ci tey jii dinañ ko def mais dina am benn manquement donc elle n'a ménagé aucun effort pour réussir tout euh, euh, projet bi donc daf ci jàpp soutenir ñi bu baax ñu koy gërëm bu baax donc tamit di ko wax ne tey jii bu ñu waxee ne moom ministre la femme la gëm nañ ne ku njaboote jigéen la ñun de faatu faatu yi mën nañu firndeel loolu tey et que ma xam ma waxal leen le du benn relation bu ñu am ak moom dañu ko euh, adressé en tant que jigéen mu nekk ministre jigéen ñi mu daal di ñuy wuyu donc ñi ngi sant bu baax ci teewaayam di ñaan euh, première édition bi dem ba nekk vingt édition li ñu motiver mooy dañuy gis ne jigéen ñi tout le temps dañuy paan mais duñu xam lan mooy euh, lan mooy paan da ngay gis jigéen bu paan nekk ci tali bi jaaxle da ngay gis jigéen bu paan wanoon a dépassé ci oto benn trent mille tey dépassé ci benn un million cinq cent ngir ñàkk xam donc dañ ko def pour ne serait que ñuy mën a def ay réparation préventive yoo xamante ne dina la coûter moins donc loolu moo tax ak tamit comment décrever xam nga dafa rafet sax nga gis jigéen ci tali muy décrever boppam c'est beau avoir voir te ñi ñu jot a former gis nañu affaire bi dañ ko def ak facilité système la c'est pas diable système la. tey ci mois de mars bi nga xam ne ko jagle jigéenu Sénégal je pense que tey fierté la pour ñun en tant que ministre en charge la promotion de la femme seet si jigéen ñu mel na yéen. wax naa leen war wane en exemple parce que quand même bu ñu wax jigéen Sénégal rek yéen defe naa ci première ligne bi ngeen taxaw parce que yàgg naa leen suivre yàgg seen taxawaay yàgg ngeen di góorgóorlu pour seen garage bi nga xam ne da ngeen ko teg tout petit di jàpp fi aussi engagement aussi en tant que ministre ayant en charge la femme la promotion de la femme ci jàppale leen pour ngeen jóge fi ngeen nekk jem ci kanam parce que on veut former on va avoir des championnes dans tous les domaines mais particulièrement dans le domaine de la mécanique parce que defe ni góor ñi mën a taxe ba am ay grand garage góor jigéen ñi am nañu le savoir faire am nañ la formation qu'il faut donc il suffit juste de les pousser un peu pour ñu agsi à ce niveau tax vraiment ñu am ci tey fierté am ci aussi tam vraiment engagement bu ñu renouveler ci jàppale leen ci lépp loo xam ne moom ngeen bëgg pour vraiment dem euh, pour aller de l'avant donc félicitations encore une fois ci liggéey bi ki taxawaay bi ici c'est une fierté pour toutes les femmes ici présentes vraiment mais qui sont, encore, sont vraiment engagés dans, dans le travail qu'ils sont en train de faire et le, de le mener de, manière si, si, si, si, efficace et vraiment de si belle, de belle manière. Donc nous les féliciter et les encourager. Vraiment, euh, merci encore une fois d'avoir donné cette euh, opportunité aux femmes mm, de subir cette formation, une formation qui est très importante, je pense, parce que comme vous venez de dire, les femmes ne connaissent pas en fait l'automobile, ne savent pas comment décréter les roues, ne savent pas comment peut-être réparer une petite panne qui peut peut-être qui, qui peut coûter peut francs, qui va coûter plus tard 1 million de francs si elle n'est pas bien dépannée. Donc euh, merci de nous avoir offert cette, formation, qui formation vraiment vient à son heure, vu en fait l'importance et le nombre de femmes qui conduisent actuellement des, des véhicules dans le Merci à fato Fatou et félicitations et encouragements.